dañuy dem pour représenter Sénégal représenter Afrique pour coupe du monde bi ñu jëm ce Paraguay inshallah. donc am nañ ci contentement trop donc euh, ministre bi ñaax nañu euh, jox nañu message u chef de l'état monsieur Macky Sall donc li légui nak ñun ñoo si des donc xam nañ ni ñu war te am nañu objectif bi ñu fixé wu donc bobu ba légui ni bi bit soccer bi juddoo ba tay masul dem euh, demi-finale donc ben équipe africaine masul dem demi-finale donc suñu objectif ren la coupe du monde Moi, nii mooy dem dugg ci carré d'as bi incha allah te bu ñu xasee ba ci carré d'as bi leneen bu donc di profité waale aussi cette occasion bi remercier la fédération sénégalaise de football bu baax ci préparation bi def parce que depuis 2007 ba préparation bi ñu am 2019 masuñu ko am parce que nous sommes daan de wu rek coupe d'Afrique, coupe du monde duñ jouer ay tournois donc cette année ci nous avons joué nañ quatre tournois nous avons ne la préparation préparation coupe du monde bi la bokk. donc di remercier fédération sénégalaise de football di wax maintenant la balle est dans notre camp ñun sommes Nous dem def fula ak fayda ak jom représenter dignement le Sénégal ba bu ñuy ñibbisee incha peuple Sénégal bi fier ci ñun inshallah